jërë ngeen jëf mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñoomati li nga xamante ne mooy mbégte contentement bu baax a baax Babacar mais tey nag ñoomati mbégte tey xale bi nga xamante naa la mooy Soda xale bam dafa am tawat mais ngi toog ak ak ay waajuram ñu fas am solo ci li nga xamante ne mooy ci xale bi tey nag Babacar bi mu social lay dox ci loo xamante ne tey jaamu yàlla yi nga ngi ci réew mi fu ne bi ñëw jàppale xale bi nga xamante ne mooy Soda dafa feer feer bu métti mais ñu ngi yaakaarloo ki nga xamante ne mooy waajuram ñu ngi lay nuyu tudd Mariama Diallo laa tudd. Mm-hmm. tey ñëw fekk la sa kër ngeen nekk ak seen xale bi nga xamante ne tey dafa feebar Soda feebar yi depuis kañ la ko daaneel. ah Soda depuis bu mu juddoo ba am une semaine. la feebar bi commencé génn ndànk ndànk. Mm-hmm. boobu ba tey nag ñu ciy def jéego di daw di dem di dem di dem mais ba tey mm-hmm. dara. juddoo am une semaine ba ak léegi Soda mu ngi am ñaata at ak léegi. mu ngi am fukki at ak ñeent. ba léegi. Euh, mais jëmmi jamono bii ñu nekk ni léegi am na trois mois mu ngi tëdd feebar bi da koo daaneelaat dem nañu hôpital mu ngi dem hôpital def nañu lépp mais ba tey mu ngi tëdd. Mhm. boobu ak léegi mu tëdd pendant trois mois lan la ci nga xamante ne mooy situation bi tax soo la faju lan la doole ngeen amut wala ku leen jàppalee pour situation. waaw loolu moom dëgg moom situation moom amul moom amuñu doole. liggéeyuñu te ay jigéen lañ yaayam bu lettul du am xaalis doo yore te xam nga ku yore kii doo génn fii di ko bàyyi di dem liggéey ndax moom pot bi yaa ko fay yóbbu buy lekk yaa ko fa yaa koy jox buy naan yaa ko fay jox buy tëdd yaa koy teg buy jukk yaa koy yëkkate kon ku am ku mel ni doo mën a xëy dem liggéey su kiliyaan ñëwul mu leet nii lay toogee pour mu lekk sax day nekk problème te moom dafay tànn li muy lekk du lekk n'importe qui lay lekk yaa ngi dégg affaire bi den situation bi nekk lu critique moo tax ñu kontaan tey bi ngeen ñëwee ci ñun tey di ñu laaj ñu mun a yàbbi li nekk ci ñun ndax sonnoon nañ trop. Sénégal am na ay bonne volonté yoo xamante ñu ngi ci réew mi war nañ cee mun a jàpp def ci yi nga xamante ne mooy seen i doole parce que ku am ko balaa nga faj sax yoon parce que nga nga dund. parce que gis nga ni ci côté li nga xamante alimentation am dafa xaw a jafe moom moom Soda. waaw dafa jafe parce que ku la mënul wax ne lii laay lekk lii laay naan doo ko mën pour nga toppat ko boo ko xamul wala juróo ko wala nekkoog man day métti métti. wax dëgg fa yàlla yaay ji jàmbaar la te xale la amul doole amuñu yaay amuñu papa amuñu yaay amuñu papa amuñu mag bu góor bu ñu sës ay jigéen kese lañ yaa ngi dégg fay luwaas ñun la lekk bi ñun la naan bi ñun la hôpital ñun la mais nag papaam bàyyiwu ko mais papa ji yaakaar naa xale la su nekkul sa morom daw na daw na daw na daw na ba sonn mais xam nga ne ku nekk xam nga jamono ji fi mu toll ak ni mu mettee mooy daal ñi ngi euh, moo tax ñu ne ñi ngi woo képp kuy ci waaw autorité ji réew mi surtout ma Cambérène 2 ñu ngi woo monsieur le maire di di ngi woo monsieur le maire di woo képp ku topp ci ginnaawam di ñaan ndimbal te yàlla rekk tax ndax sonn na sonn na toogaay bi metti na tëraay bi metti na fii ak fii buy jug danga koy yóbbu yow gis nga bi nga ñëwee ci suba ba tey di yaa ngi gis ni doon tëraay ak moom depuis suba léegi nag moo tax ñu ne ñu kontaan bi nga fi ñëwee def say jéego pour ñu génnee ko moo ñu nangu mais yàgg nañoo muñ ak moom 14 ans loolu du tey yàgg nañu mun nag moom di travailler ak moom mais dañoo dem ba léegi fu mu toll nii sës nañ dafa gën a compliqué sës nañ gis nga ko fi muy tëdd bu tëddee fii ba suba soo ko yëkkatiwul du jug yaa ngi dégg bu buggee yaayam buy létt tey day jaaxle parce que day bëgg day bëgg di ko létt di ko yëkkati xam nga tey doo loolu mun neexul te du la woo. dafa bële ñaari catu mel ne dafa am problème bu bët tamit et cetera ak euh, problème mu tànk mel ne ku zaaru AVC. yes tànk yi du dem mënul dox mun du gis du wax. non non non non. amoon na ay jamono boo ko téyee nii comme fan yële bala moo daan daanuwaat feebar boo ko téyee dina dox yaa ngi dégg dina dox nga téye lii mu dox nga dimbali ko mu dox mais depuis feebarab bi daanee laat ko nii mu tëdd 3 mois yi lekkul du lekk naan rek lay def ba léegi gis nga tey yaayam bi mu koy sang ba mu koy yëkkatee pour teg ko mu taxaw dafa bañ nga ko mujjee leew ko nii chaque jour nga yeewu leewu génnee leewu dugal doy métti mais boobu ak léegi ki nga xamante ne mooy sooda ci yan anam ngeen yi ko yóbbee hôpital ndax li nga xamante ne tey seen côté ordonnance ba amoon ay ordonnance yu compliqué seer yoo xam mënu leen ko jënd waa loolu moom day am am na fi ndax anam pour yóbbu hôpital métti na trop ndax tey jii bu dul papaam moo taaba taaba yónnee yaayam du mun a dem ndax même koñ bu ñu dëkk mosuñu fee génne génne ordonnance ne may leen ñu ordonnance kii ñu bari xamuñu ko fi. ko sax. Mhm. ngor moo lay may ba doo mën a génn mais am na fu situation yi toll doomu adama boo bañee def lenn loo xamante ne lu yoon war nga mën génn bonne volonté ni ci àdduna bi fu ne ci réew mi surtout waa diaspora bi ñu dugal seen loxo jàppale leen te yàlla tax parce que situation bi critique li ma gis fii moom dafa critique yow yaa ko gisal sa bopp di nga ñëw gis nga situation bi te xam nga même bu dee tey du tey xam nga àddina tuuti waaw bi nga see war nga mën a xam situation bi moo tax ñu ne nañu génn def bon xoma volonté nit ñi jàpp ci Afrique Europe ñu ngi ñaan képp fu nekk waaye nekk di dimbale doomu aadama nañ ñu dimbale te yàlla tax di woo meer bi dëkk Cambérène 2 ñu ngi koy woo képp ku nekk ci ginnaaw ñu ngi leen di woo ñu jàppale ñu te yàlla tax ndax sonn nañ surtout moom coono bi yëpp moom moo ko yen sonn na sonn na yaayam sonn na ñu ngi leen di ñaan ci jëmmari di ñaan uh, ci ma kii kilifa diine kilifa aada yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu ci te yàlla rek tax dëgg la loolu am na solo lool ci li nga xamante ni Babacar mooy ci li mu wax mais di ci woo ñëpp rek képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi di def social di jàppale doomu aadama yi ñu ci woo pour nga ñu jàpp ci ñu ngi ci wan ku ci mel ne Kanji Kanji production Kanji bi nga xamante ne tey mooy directeur TDR ah établissement Khadim Rassoul bi ñu ngi koy ci woo bu baax a baax moom Kanji taxawaay bi muy def ci jaam ñeeg ñeneen ñeneen na ñëw nag tey bi combat bi suma combat la Kanji ñëwal nga jàpp ci nga def ci li nga xamante ne mooy sa doole nga jàppale leen te xam ne ay jigéen lañu seen doole u noonu di ci woo képp koo xam ne yaay def social rek ci dëkk bi di ci woo bu baax a baax Lat Diop directeur LONASE tamit ñu ngi ko ci woo bu a baax Lat Diop surtout loolu parce que di ci woo tamit ki nga xamante ne Lat lépp li nga xamante ne mooy parce que sa dëkkuwaay la sa géejuwaay la parce que Cambérène 2 benn la Lat Diop ñu ngi bu baax a baax nga ñëw def ci li nga xamante ne taxawaay ak sa doole di ci woo nag Waly Seck bu baax a baax moom tamit di ko ci woo waaye di ci woo Waly mu ñëw jàpp ci ci woo Matar Diop suba teel ñi nga xamante ne ñoom ñëpp dañuy def social ci réew mi ak àdduna bi ñu ngi leen ci woo bu baax a baax ñan ngay woowaat pour ñëw jàpp ci. ngi woo honorable Mame Gueye Diop di woo ci mairie bi di ñëw woo ñoom kii nu mu tudd Lat Diop di leen woo ni nga ko waxee rek di woo ñoom waali di woo képp ku waay dimbal nekk ndax boo limee da ngay jóom yaa ngi dégg muy télé di rajo ndax sonn na ndax léegi tey ji suba yaay ji bi ñu ko taxawalee da deelu lax léegi nangatul sax toog te xam nga kon lii jëmbul kar dafay nangu loxo lay def ba pare nanguwul lekk nanguwul naan moo tax ñu ngi woo ñëpp jàppale ñu ca yàlla tax ok di nuyu nag Cambérène de ñi jiitu ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu kilifa aada ak kilifa diine ñu jàpp ci te yàlla rekk tax Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ñu ngi lay jaajëfal tey koy yan numéro nga ñu mën a jox ci yoo xamante ne tey mooy seen numéro bu am Orange Money wala Wave et cetera ñi nga xamante ne mooy boobu volonté yi si war a jàpp. 77. 057. 73. 26. 26 ok. mbégte kontaan ma bu baax a baax. ñun tamit ñu ngi kontaan ci yéen di leen ñaanal. liggéey bi gën a yaatu gudd fan wér-gi-yaram jërëjëf kontaan nañ torop ñu la ko mën a waxee rek des na ndax suñu xol sedd na ndax bu la neexoon nga toog xaar ba ñu jëli la mais ba nga ko déggee da ngaa ñëw yaa ngi dégg moo tax ñu ngi jaajëfe bu baax di la di kontaan men ni ma daal ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla fay sa xol ci woo Babacar gis nga li nga xamante ne mooy li fi xewoon léegi léegi ci côté li nga xamante ne mooy xale bi tawat ah di ko ñaanal ndimbal ah, di ko ñaan fépp ci àdduna bi rek ak fu nit mën a nekk ci doomu aadama bi rek ak koo mën a doon rek ñu la koy ñaan di ko ñaan ci bonne volonté yi que ñu ñëw jàpp ci li nga xamante ne bi mais di ko ñaan tamit ah, suñu sama yaay bu baax a baax Ndeye Mariama Ba ah maa ngi ko koy woo moom mi nga xamante ne moo nekk Europe nekkal fa gars yi dox social maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci bu baax a baax incha allah numéro bi nag bi ñuy joxe ku ci woo rek jot yaayam directement ñu ngi si def ci ban d'écran bi boobu moo am Wave am Orange Money incha allah lépp lu nit am lu koy dimbale jàppale ko rek nga daal ko fay jàllale jërëjëf.